si di Ahmed Talib Ben Souda euh, ci rek ginnaaw ba nga xamee ne nag coow li bari na ci lu jëm rek ci wàllum flag bi yara ci langu UDP gi mu United Democratic Party moom nag daal dina ci àddu lu mu daal di xam ne ne mbir la moo xam ne nag jotagul ñu ci wax maanaam rek dafa prix match teg ci itam nag les ci jublu rek mooy fexe ni ñu rek daal di féewale wala rek daal di distragué ñi nga xam ne rek ñoo di lang gi te nag ñee ne loolu du jural kenn njëriñ lu rek ñi nga xam ne ñoo ruling party muy National People Party ci nag moom muy addu ab exclusive interview boo xam ne rek séq na ko ak Standard Newspaper moom nag ci boppam di Ahmed benn Bensouda daal dina rek addu ne ki nga xam ne nag moo di njiital langu UDP gi Abdoulaye Ousainou Darboe ci boppam nag leeral na mbir mbiri ndax nag lu mu xam le ne lu jëm ci wàllum wax yooyu muy rek dibéer ci lu jëm ci li nga xam ne moo di wàllum euh, Flag Biara moom ci boppam li mu xamle rek moom di Ousseynou Dabo euh, nee na daal mbir mi waxtaanee ko dafa rek daal di jotagul tey nag bu jotee euh, parti gi dafa parti bi dafa rek am ay sart yoo xam ne rek daal dina ko teg moom Ahmed benn Bensouda nag li mu xamle nag mooy faw rek ñu topp ci sarta yooyu ba mbir moomu la jot ñu doog a wax lu jëm ci wàllum nag Flag Biara sib ci nooy nag moom si boppam sax mu daal di ci addu di xam ne daal ne wax boobu yi nag waruñu ci see waxtaan li ñu war a waxtaanee jamono jile nag mooy fexe ba. Euh, lu ñuy fexe ñi nga xam ne rek moo di NPP muy nguuruk Adama Barrow gi ak langam gi ni ñuy fexe rek ba gis ne doxalin wu jaarul yoon wi nga xam ne rek ñu ngi koy doxalee réew mi nu ñuy fexe nag ba jëlee leen fi teg ci itam euh, fexe ba rek ñoom ci seen bopp ñu daal di leen xool account bi loolu yi daal moo war a doon euh, li ñu rek war a def yitte jamono ji mu teg ci itam nag daal di xam ne nag sa euh, mbir moomee nag ñuy waxtaanee bennoo képp moo ko rek mën a indil réew mi tey itam nee na nag faaw ñu bennoo langue gi ci boppam tey jëlee la gën a soxla bennoo ndax nag yenn waxtaan yi wala yenn wax yooyu euh, lu muy indi rek mooy mën na si naa rek daal di féewaloo féewale li nga xam ne rek mooy nit ñi ci noonu yi moom ci boppam nag bi ñu ko laajee ci lu jëm itam nag ci wàllu li nga xam ne rek. mooy dafa bëgg doon li nga xam ne rek moo di euh, la wax maanaam rek app candidate ci langue UDP gi ci élection yu ñu dëgmal moom nag nee na amul fenn foo xam ne rek mën na ko mos ko faa waxee moo xam ci public la wala private nee na mosula wax lu mel noonu moo tax sax nee na bi mu yëgee lu mel noonu coow li bari ci euh, moom loolu sax daf ko rek daal di jaaxal loolee euh, mu teg ci itam nag ne loolu yëpp du lenn lu rek nag ñi bëgg indi féewaloo boobu nag bokk na rek ci NPP ñi nga xam ne rek ñu ànd ak njiiti réew mi te nag loolu yi waruñu leen si rek daal di bàyyi mu teg jàngat ci itam nag ne euh, lu jur loolu yi NPP dañuy bëgg rek daal di jaxase xelu euh, ñi nga xam ne rek ñooy UDP euh, wala ñeneen yi ndax nag ne na njiiti réew mu ne wala sax nguur gi ne euh, ki ko war a wuutu wala sax ki nga xam ne moo gën a jekk euh, ci daal di koy wuutu euh, ci jamono yooyu dafay fexe rek nu muy daal di indee après que jaxase xelu nit ñi su ko defee nag ñu daal di rek am coow loo xam ne rek loolu daf koy rek daal di févo moom bi nga xam ne rek moo nekk ci nguur gi buñ ko nag laajee ci lu jëm ci wàllu local government commission bi nga xam ne rek mooy di lu ñu tul lu jëm ci nguur yu suufe yi lim ci rek daal di xamle mooy daal nee na ci jamono jooju nga xam ne nag ñu ngi ko doon indi lu ñu xamale woon mooy timing bi baaxul woon ndax ñu ngi ko bëggoon a tàmbali ci jamono yi nga xam ne rek moo doon ci élection locale euh, Euh, li nga xam ne rek mooy local euh, government yi muy lok euh, xam ne rek ñooy council yi ak mayor yeeg ñoom mosu ñoo li nga xam ne rek moo di transparency waaye nag nee na transparency warul nekk rek ci benn boor ndax yi ci boppam des fa war a ne rek ci ay njuuj yooyu nag des a li nga xam ne mooy taxaw seetlu ci wàllu li nga xam ne itam nag mooy wàllum passeport bi nga xam ne tudd nañ ko ci lim ci rek daal di addu mooy loolu itam nag dinañ ko nemmeeku sax ci yeneen i barab ndax nag noonu des koy faral di. amal mu teg ci itam nag de moom dàqul benn yoon ab leeral boo xam ne rek wares nañ koo def ci lu jëm rek ci ngir askan wi di mën a xam nes la seen rek nguur yi yore li nga xam ne rek moo di euh, seen sampe fii waaye nag nee na warul rek jëng des ko rek war a amalee fépp waaye nag nee na sax boo xoolee la commission ñu taxawal dara taxul ko jug rek lu dul nag lu jëm ci mbirum KMC ndax nag amoon na jamono yoo xam ne nag gi fexee na nu ne waa ngir rek dugg ci te nag fu ñu dem rek ci lu jëm ci attekaay yi dafay jox dëgg li nga xam ne moo di KMC loolu nag moo waral sax ñu sabab li lee waaye nag ñoom dàq ñu ko lu ñu dàq kay wala di ko ñaawlu nag mooy mu jëng wala ñu ñàkk ko rek daal di teg ci yoon mi ko amadou euh, lu jëm ci euh, KMC wala sax UDP la ko njëkkee moom Talib Ahmed Bensouda ci lu jëm ci walu flag biara coow Barina. bari na waaye moom lu mu xamle rek ne moom musta wax ben yoon bëgg doon flag biara bu UDP waxtaane wu ko ci biir nekk waxtaane wu ko tamit ci biir penc mi nee na ko sax dafa surprise nan ngay jàngatee kàddu yi nga xam ne euh, moom yëkkati ak coow ci topp yépp ci nit ñi di wax ne nañ taxawal Talib coow li bari ci loolu ba bëgg a dee mu ne musuta wax ne bëgg well jërëjëf Garme um, I think it's important mom Talib ci bopam mu genna wax ndax mbir mi comme nim ko waxe euh, last week of last month la bëgg wax mu ngi won liif waaye cioli bari won um comme nim ko ko ko nangul mom waxu ko publicly waxut ko maybe mu ne privately ak ken waye li ci li ci li ci fess ñep gis ko moy euh, comme nim ko waxe ci bir parti bu UDP ci bop dañ ci outé lu bari bari ñun gis nañ ci ay yu fess ñu jàpp ni am ñu góom ñi ko am na sax ñu ne woon ñu ko jegee wala am na ñu di bokk ci parti bi ci yoon yi ñu nekk mooy xalal ko yoon pour mu nekk flag bearer euh, 2026 euh, weddi na ko nag comme ni nga ko waxee jàpp na ne parti leader bi wax na nañ xaar ba right time bi jot su ko defee li parti bi sarta yu mu tëral nañ ci jaar pour yegg si loolu waaye politique la politique dafa am realities te am na yenn jaru nga koo wax waaye acte rek. ngay def ni ñu di xam foo jëm nda taalib def na acte wala defu ko euh, nit ñi yaa ngi gis waaye réaction si lu ñu wone am na ñu njortu ne ci tànk yooyu la nekk alright su fekkee nag moom léegi génne na weddi publicly nekkul ci loolu waxut ko ak kenn mun nañ ko ko nangul waaye fii ak 2026 sori na soreetut waaye li am ba des mooy euh, comme ni mu ko waxee ñu nekk ci biti mun nañ in instigate wala trigger debate bi waaye ñu nekk ci parti bi tamit ñu ngi cee wax kon de am nañu am problème boobu parce que am nañu ne parce que even at the some members yu nekk ci ñun mag nekk ci parti bi eh, am nañu génn public li wax ne buñ amee lu leen gënal wala ñoom sax aussi nu daabu mu nekk seen flag biara, loolu la ñoo support te ci loolu la ñoo pousse waaye am na ñi nga xamante dañ bëgg a taalib mu nekk flag biara 2026 all right so what will happen time will tell but eh, moom taalib génn na wax léegi ndali dina tax coow li jeex we'll see but apparently Euh, am nañu góom ne daal Ousseynou daaboo dafa war a may xale yi chance ñu ñëw 2020 te kuñ gis kuñ njortu ne xëy na moo war a nekk candidat bi. mooy taalib mooy taalib. taalib nag léegi tamit dafa mel ni moom bëgg naa xaar bëggut a flat benn rôle lu parti bi wax. all right donte ne Ousseynou Dabo wax na na gars yi noppi waaye am na ñu bokk ci parti bi nekk ay mag ñun dégg nañ lan ñu wax na ñoom Dabo moom mooy nekk flag bearer outright ñoom dañ ko dañ ko endosse waaye loolu ndaloo dina tax Dabo nekk I don't think ñu bugg a tamit taalib nekk ko ñoom tamit seen bugg a bugg lañ wax léegi li loi yi nga xamante ne parti bi loolu la tëralee buñ ci tollee bu dee topp nañ loolu bu dee taalib bugg na dina wane interest ba nag coow li bari na te léegi gars yi ñëwee in every rumor there is an hmm. loolu tubaab bi loolu la wax léegi nag ndax loolu moo am wala amut li ci kanam rawal bët waaye interesting la hmm. politique la waaye ak li mënta am UDP danañ am candidate bu dee Dabo la bu dee euh, benn Bensouda la bu dee keneen la incha allah 2026 dina leer. ok euh, dina leer 2026 KMC tamit ci lu jëm ci local government commission bi moom jàpp na ne euh, li ñu ko doon indi rek du lenn lu KMC moo tax ndax gis nañ ne lu ci bari ci government bi mu ngi doon jéem a interfere ci KMC waaye bu ñu demee ci court ci court si dafay jox KMC dëgg moo tax ñu indi lool wax na itam ci lu jëm ci wàllu passeport lu wax ne mu ne lu normal la te ko gis ci yeneen yi bu fekkee kii bi mu ngi investigation wala sax local government commission mi ngi wéy dinañ ko gis. waaw man man damay wax ne. bu dee loolu la woon sax ndokk yàlla. waaw ndokk yàlla parce que lu commission bi feeñal. Gambien si bari xamuñ ko woon. bu dee KMC lañ toppoon ba tax tàngoor KMC def lu ñu def ba tax nguur gis loolu indi parce que booy luy xeem lu doon xew ci kansul dafa yéeme gar Gambien si yëpp a waaru ndekete millions yi war a dem ci nit ñi mu ngi dem si ay individuals loolu moo ci yéeme léegi nag politique moo ko taxoon a jóg loolu ñu bari loolu lañ jàppoon. parce que lu mu wax nii loolu moom moo amoon parce que cool ne cour KMC dem nañ ay yoon yoon court of course KMC moom moo gagné ci yu bëri léegi nag bu doon président bi loolu la njort ba yaakaar ne xëj na parce que ñu bëri dañ ko gisee woon political witch hunt fine but at the end of the day li nga gis lu yéeme la lu doy waar la lu tiis la ci réew mi parce que local governance tamit dafa am solo they are close to the people lu bari tey Gambien si ñu ngi koo dund ci ay mettit ci ay jafe surtout ci wàllu transport ak ci nawet bii nii local government council yi ñoo ci waroon a régler loolu waaye régler wuñ ko ndax xa amuñ xaalis naka la ñoo am amee xaalis xaalis bu ñoo jëlee ci nit ñi ñoom ñu ngi koo maa ko wax de commission bi moo ko nekk di feeñal mm. te ñoom ñoo toog di ko wax directly ci kanami Gambians bu ñu gisee nit ñi toog ay xaalis nit ñi di ko def di ko joxante ay salibo loolu dafa doy waar de dafa doy waar mi ngi ko ñu wax ci leneen ci am